fii wax dëgg yàlla manuma fi manuma fi bañ manqué ndax gan yu bari man maa leen di daloo ma bokk ci kuréel bi ba ma nekkee xale bu tuuti maa gënoon tuuti ci ñi bokk ci kuréel bi altine ba tey maa ngi fii di teeru gan yi te waxoon naa leen que looloo tax manuma woon bàyyi bésu démb bi nu defal sëñ Cheikh Sidi Makhtar te ñëpp xam sama diggante ak moom dem sa marche ba waxoon naa ko Omar Sarr apporter sama soutien wax leen ni leen maa ngi seen wet maa ngi woon fii Ndar si ñaari ràkk yi waaye ànd naa ñoom si li nga xam ni moom la noo xeex da te ku déglu message bi ma def si tabaski bi daa xam ni man ànd naa si 100 pour cent président Macky Sall moo wër góorgóorlu ndax mi ngi yàq réew mi mi ngi delloo réew mi gannaaw si dem si wàllu démocratie moo wër góorgóorlu soppali doxalinam xam ni kat réew mi. nguur yàllaa koy joxe su yàlla jeexalee nguuram ak pexe yu mu lal dana dana daanu kon loolu nag na si rafet na si rafet mooy na tege fi si yoon ba nga xam ni ëllëg élection yi dana am si jàmm ku gagné ñu nangul la ni gagné nga waaye fii nu toll mësul am si Sénégal ñu jëm six mois des élections te kenn àndul si li moo def mu bëgg jël ministre de l'intérieur bi nga xam ne si moom la bokk di maire si moom di responsable politique ni kay organiser élection yi kenn amul benn gis-gis si fichier bi xool nañ la fichier bi di tëdde ànduñu si parrainage bien que ànduñu si comme léegi conseil constitutionnel wéyal nañ ko daan daan ka daan ko jëfee waaye nag parrainage bi scandale bu rëy la te balan kay xam mooy ñu àgg sa lii yëpp euh, jaaduwul jaaduwul nee naa leen jug manifester dafa bokk ci démocratie bañ na ba duñ ko dugal ci constitution bi ñoom nag bu nu fàtte ni bi ñu fi nekkee loolu lañ daan laaj fu ñu ko laajee ñu fekk leen si li gën a wóor mooy ñoom dem na ba manifester le 23 juin place euh, place Soweto su manifestation amul woon kenn du fa gis mbooloo moomu autorisation su amul woon euh, boobu tey opposition bi deful lenn loo xam ni am na fitna. lu mu def lu nekk ak lu mbooloo mi bëri suñu paree ñëpp danoo ñibbi seen kër tey ñu téye leen si loo xam ne dem sit-in devant euh, si ministère de l'intérieur wax seen naqar loolu si démocratie la bokk partout nga koy gis danoo def sit soo demee Nations Unies danoo def sit-in devant la Maison Blanche danoo def sit-in devant devant l'Élysée ay manifestation dañ fay organiser ba euh, euh, Champs-Élysées dafay am ay manifestation kon nag wax dëgg yàlla ñoom war nañu góorgóorlu ba soppali doxin wi ba bàyyi nit ñi na mu gën gaawee nanu bàyyi jaay doole réew kenn du ko yor si jaay doole doole yàllaa ko moom kuy jaay doole da ngay yow da nga koy jeexal soo jeexalee doole ga da ngay rus. am yaakaar ne dana leen bàyyi si leen bàyyi si nii wala mu bàyyi leen si naa te gëm naa ni su leen bàyyiwul justice su fa fekkee ay magistrat yu am fula daan leen bàyyi nu mu gën gaawee. Euh, man wax dëgg yàlla comme téye nañ leen ba tey maa ngi xalaat di mën nañ leen yóbbu procès te loolu booba gàcc Sénégal la ay dirigeants yu toll noonu député nekk si biir ak ñeneen ak ñeneen ñu taxaw di manifeste nii dañu bëgg ñun élection normal élection yu jaadu am si dëkk bi ñu bëgg leen téye ko kun sa téye wax dëgg yàlla démocratie bu narmeelu la démocratie bu dellu gannaaw la te loolu Sénégal war na ko moytu